cinq janvier koo gis muy dem bul ko laajte fu mu jëm xamal ni Daaru Saam la jëm Daaru Sam ci ndigalul Serigne Mountakha Mbacké Sam ci ndigalul Serigne Moussa Nawel Mbacké Serigne Moustapha Diop xalifab Serigne Abdoul Samad Diop moom Serigne Massamba Diop Sam mu Cheikh ma Bamba Khadim Rasoul moo leen di yëgal cant ak ak ziar gi ni amalal maamam Cheikh Massamba Diop Sam ca Daaru Saam ñu na ma ko amal le 5 janvier 2019 ñu ci woon ak ñëpp bàyyiwunu kenn kenn bàyyiwunu ñenn bàyyiwunu fenn di ko yëgal mboolem njabootuk Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul rawatina ñu féete ci kër Serigne Massamba Diop Sam ak ñi nga xam ne seen buntu ci Serigne Massamba Diop Sam ñu ngi ko jaarale ci Serigne Abdoul Samad moom Cheikh Massamba Diop Sam Serigne Moustapha Diop sëtub Cheikh Massamba Diop Sam mu Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ñi maa ngi fàttali itam ndigal li nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ko joxee ca ne xam ne waa kër Cheikh Massamba Diop Samb lépp loo xam ne Serigne Touba soxla na ko dañuy bokk ci ñi nga xam ne ñoo ci njëkk a mu di université Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bi nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bassirou mu fi nekkal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi nga ci woo taaliba yëpp waa kër Serigne Massamba Diop Samb war a bokk ci ñi jiitu ci mbir mi Serigne Moustapha Diop moom Serigne Abdoul Samad Diop ñi ñoo ngi soññi ñëpp nag bàyyiwuñu Omar mu Cheikh ma Samba Diop Sam mu Cheikh ma Bamba Xaadimu Rasuul ñu maa ngi ci soñu ñëpp nag bàyyiwuma kenn di ñaan ñu daje ci ngërëmal Cheikh ma Samba Diop sàmm kon ma ngoog le 5 janvier 2019 moon na ma doon ziyaare Daaru Sam Serigne Moustapha Diop mu Serigne Abdou Samad Diop ni maa ngi ñaan képp ko ca teew yàlla nga ci daje ngërëmal Cheikh ma Samba Diop Sam mu Cheikh ma Bamba Xaadimu Rasuul